sociale et environnementale, M. Idriss Sek, en ma qualité de chef de l'administration du Conseil, je voudrais, au nom de tous les agents, vous souhaiter la bienvenue en leur nom, vous adresser leurs sincères félicitations en leur nom aussi, prier pour le succès de cette mission dorénavant confiée à vous par son Excellence Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, nous sommes une administration imbue des valeurs de la République et vous pouvez compter sur toute l'administration du Conseil pour vous accompagner dans la réalisation de votre vision pour cette auguste institution. Je vous remercie. Merci Madame le Secrétaire générale. Nous invitons Monsieur le Vice-président Baïdian remettre l'écharpe et le pins au président Idrissa Seck. Merci à vous. Nous invitons Monsieur le vice-président Baïdéagne à venir faire son discours. Merci. du Conseil économique, social et environnemental, Madame la présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des, et des relations institutions, Monsieur le ministre, Monsieur le vice euh, premier vice-président de l'Assemblée, Monsieur le président du groupe parlementaire de la majorité, Monsieur le Premier vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant du Haut Conseil du dialogue social, autorités religieuses et coutumières, Monsieur le Président du Grand Parti, Madame et Messieurs les invités, honorables conseillers, Monsieur le Président, la noblesse de la responsabilité institutionnelle, c'est de pouvoir, c'est ce pouvoir d'écouter, de décider et de réaliser des actes républicains de portée historique pour le bien de la nation. Mieux, je dirais qu'il y a dans l'histoire humaine des moments de grande rupture de plus d'engagement républicain et de solidarité nationale. Ces moments, oui, Monsieur le Président, j'ai la conviction que nous les vivons en ces instants, après ce choc sanitaire exogène d'une telle ampleur et sans précédent, mais également à travers la nouvelle feuille de route présidentielle. Je souligne en paraphrasant Georges Cayen Salvador, réformateur durant l'entre-deux-guerres de la haute administration et du Conseil économique de France, que les conseils économiques ont une longue carrière à parcourir. Leur raison d'être, c'est la fin des conflits à l'intérieur des frontières. Leur but, c'est la texturation économique et la coopération sociale. alors notre voix, celle des conseillers économiques, sociaux et environnementaux, exalte à plus de cohésion nationale, de progrès social et de croissance économique inclusive. Monsieur le Président, notre cérémonie d'aujourd'hui traduit l'union et la solidarité de ceux qui ont, premièrement, cette motivation de mobiliser les énergies nationales dans leur diversité. Deuxièmement, cette ambition de donner un avenir socio-économique durable à notre nation. Troisièmement, cette passion pour le j'aime mon pays, le Sénégal. Montesquieu, ça je fais encore un clin au ministre Sambassi, nous rappelle dans une situation pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être tout simplement parmi eux. Alors, il me revient en ma qualité de premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ensemble des conseillers ici présents, mais aussi de l'administration. Je porte également à l'intention de notre, à l'attention de notre Assemblée qu'être parmi nous est l'invitation que vous avez faite à vos prédécesseurs, présidentes et présidents du Conseil économique, social et environnemental. Les conseillers s'en réjouissent car notre institution de la RIPS, d'une part, une démocratie sociale, économique et environnementale, et d'autre part, une démocratie active, innovante, régulatrice des désaccords, contradictions, convergences qui existent au sein de notre société. En effet, les grandes nations sont celles bâties autour d'un dialogue fructueux dans le respect des uns et des autres, ainsi que sur la recherche d'un compromis national et de l'efficience économique. La singularité de notre institution est que tous les conseillers sont à la fois républicains et démocrates. N'est-ce pas, mes chers collègues Donc nous rendons ainsi un vibrant hommage à la présidente Aminata Touré, à la présidente Aminata Tal, au président Famara Ibrahim Sagna ainsi qu'à tous les présidents de notre institution qui nous ont quittés. Madame la Présidente Aminatal, je vous remercie de votre le, Président, j'ai hésité, est-ce Président et cher ami, parce que peut-être certains ne le savent pas, mais Nous avons partagé les classes au lycée Von Volonoven de la seconde à la terminale. J'étais meilleur élève que lui. Votre courtoisie, votre courtoisie, Monsieur le Président, votre fibre patriotique, votre engagement à servir la République vous ont valu la confiance du chef de l'État. C'est donc une institution dotée d'un sens profond du dialogue national et du consensus national qui vous accueille aujourd'hui. Vos qualités de leader politique, les citoyens sénégalais peuvent en témoigner. Votre compétence et votre expérience d'homme d'État sont connues de tous. Votre talent et votre clairvoyance de chef d'entreprise le monde d'affaires, des affaires s'en souvient. Au moment où la courbe de votre destin a épousé une nouvelle étape que nous souhaitons fructueuse, nous prions que Dieu vous accorde la plénitude de vos capacités, la sagesse et la guidance nécessaires pour la réussite de votre mission, l'atteinte des objectifs et une contribution positive à la satisfaction des aspirations légitimes du peuple sénégalais. La richesse de votre parcours, Monsieur le Président, est de bon augure pour le Conseil économique, social et environnemental. Innovant et porteur d'un socle de valeurs et de progrès pour notre nation, notamment, premièrement, le respect des institutions de la République, deuxièmement, la réhabilitation des valeurs travail, productivité et éthique qui renforcent les libertés individuelles et collectives, l'égalité des chances, la dignité humaine, la promotion sociale et la solidarité nationale. Troisièmement, la transparence et la bonne gouvernance aussi bien publique que privée. Quatrièmement, la réduction de notre dépendance extérieure dans les secteurs vitaux de notre économie. C'est important parce que le Conseil économique, social et environnemental est une institution consultative devant porter la voix des citoyens sénégalais pour que de manière audible, celle-ci puisse être clair, clairement exprimée, comprise et prise en charge. Parce que le Conseil environnemental et une institution d'anticipation, de veille et d'alerte, devant recenser les projections et traduire la vision prospective de tout ce qui contribue à la création de la richesse et d'emplois dans notre pays, parce que le Conseil économique, social et environnemental est une institution représentative de toutes les forces vives de la nation devant contribuer à l'instauration d'un climat apaisé et de confiance, aussi bien au sein des communautés que dans le secteur productif. Notre tâche est immense, car même s'il est reconnu de tous que notre pays est un champion du... Je dirais oui, il est vrai qu'on se parle, il est vrai qu'on s'écoute, mais il n'est pas toujours avéré qu'on se comprenne. Donc, Monsieur le Président, Votre tâche est exaltante et délicate, car vous devez prendre le pôle de tous les citoyens qui contribuent au développement économique, social et environnemental de notre pays en prenant en compte leur sensibilité et leur vision prospective. Mais nous avons l'avantage aussi d'avoir une assemblée originale et représentative du Sénégal profond. le Sénégal des villes et des régions est à vos côtés. Sa jeunesse, ses travailleurs, ses entrepreneurs, sa société civile et acteurs politiques. Nous le disons, Monsieur le Président, les attentes de ce Sénégal, des villes et des régions sont fortes. Nous leur devons une réponse. L'immigration clandestine et l'insertion des jeunes dans la vie active la souveraineté alimentaire et sanitaire, la protection sociale et prise en charge des couches vulnérables, la transition numérique, content d'avoir le ministre du numérique, l'avenir emploi et l'avenir métier, la nouvelle économie, climat et le développement durable, sans oublier les besoins fondamentaux d'un épanouissement humain, le cadre de vie, la culture et le sport. Monsieur le Président, la pandémie Covid-19 a ouvert les portes d'une nouvelle ère, de la peur du lendemain et des incertitudes, celle aussi des fortes spéculations sur les marchés mondiaux, à la fois physiques et financiers. L'ascenseur social, économique est en panne dans toutes les régions du monde, y compris dans les nations les plus développées. a fait un choix, celui de relever dès aujourd'hui le défi de la relance économique avec sérénité dans le cadre du PAP 2A accéléré, enfin du PAP 2A, donc du PSE. Notre Assemblée et un Conseil économique, social et environnemental qui est un lieu de réflexion, de proposition et de sagesse porteur d'un avenir meilleur pour tous les Sénégalais. Et je dirais qu'il est important de rendre effective, Monsieur le Président, la consultation de l'institution de la République avant toute adoption de projets de loi et décrets d'application portant sur l'environnement économique, social et environnemental. L'ensemble des conseillers ainsi que de l'administration du Conseil économique, social et environnemental vous marquent leur disponibilité et leur engagement pour la réalisation des objectifs de la seconde phase du PSE. Monsieur le Président, honorables conseillers, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Baïdéan, premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Nous invitons M. Sambassi, ministre en charge des relations avec les institutions, à venir prendre la parole. Madame, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui procède de la marche constante les institutions de notre République sur la voie que notre peuple s'est librement choisie. Et j'ai la faiblesse de croire que tous ici présents sommes conscients de l'importance de ce qui est en jeu. Car il y a autre chose au-delà de l'installation officielle du président du Conseil économique, social et environnemental, quatrième personnalité de notre République. Je salue avec tous les égards dus à son rang, que je félicite pour sa nomination et pour qui je formule des prières d'excellente santé et de réussite dans la plénitude la plus accomplie pour le bénéfice des Sénégalaises et des Sénégalais. Mesdames et messieurs les conseillers, en effet, au-delà de l'installation officielle du président du Conseil économique, social et environnemental, il s'agit de la vie de nos institutions, d'une dimension, notre destin commun, dans une république qui se singularise par une réelle stabilité politique et sociale et dont nous souhaitons voir la construction entamée depuis six décennies se poursuivre par la grâce de Dieu dans le sillage du meilleur cheminement de l'humanité. Il s'agit du Sénégal, dont la marche est caractérisée, entre autres, par une volonté manifeste et constante de ses dirigeants successifs d'approfondir les choix démocratiques, de relever et de renouveler la vie politique. Une république qui a la baraka d'être servie par des générations de femmes et d'hommes, pour l'essentiel, mues par un amour sans concession pour leur pays. prêt à consentir d'énormes sacrifices pour préserver sa réputation, qui est loin d'être surfaite d'oasis africaine de démocratie et de paix. Monsieur le Président, je puis témoigner, de par le privilège que m'offrent mes attributions de ministre chargé des relations avec les institutions, représentant à vos travaux le président de la République, seul ou à côté de mes collègues, je puis donc témoigner que vous êtes à la tête d'une institution sur laquelle compte beaucoup Monsieur le Président de la République. En atteste son insistance dans sa déclaration d'installation officielle du 15 mai 2013 sur les défis et urgences qui attendent les membres du Conseil économique, social et environnemental dans tous les domaines de la vie de notre pays. Il disait en substance, le Conseil économique, social et environnemental est une institution à la fois constitutionnelle, consultative et représentative, qui est à des processus de réflexion pour préparer, accompagner évaluer toutes les politiques publiques en matière économique, sociale et environnementale. Depuis trois années, ma fonction m'a permis de cette même place d'entendre et de partager de multiples recommandations, fruit de l'expertise diverse et avérée des conseillers, des recommandations dont certaines ont été mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer le bien-être économique et social de nos compatriotes. Je ne doute point que votre touche personnelle permettra au Conseil économique, social à arpenter le chemin de l'amélioration constante, de la consolidation des productions et du renforcement de la visibilité des actions, afin de permettre aux Sénégalais qui ne le sauraient pas encore de mieux appréhender la noblesse et l'utilité de cette éminente institution. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais enfin vous signifier ma disponibilité et mon engagement à être à vos côtés, avec la claire conscience de vos aptitudes à accompagner le gouvernement par vos avis éclairés. Je vous assure également de la disponibilité des membres du gouvernement à donner suite à vos futures sollicitations et à traduire en actes concrets les directives de M. le Président de la République pour une amélioration sensible et durable des indicateurs socio-économiques et des conditions de vie de nos populations. Monsieur le Président, en ces moments particuliers, dans l'aventure humaine moments au cours desquels nous réalisons et nos forces et notre extrême vulnérabilité, nous mesurons combien nous avons à agir ensemble pour préserver notre pays et continuer à avancer dans la voie du progrès et du développement durable. Je dis, en ces moments particuliers, dans le progrès ou le cheminement de l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je renvoie, bien entendu, à nous-mêmes, mais je renvoie à notre commune humanité qui est interpellée la manière dont nous le savons tous. Nous vivons des moments d'une extrême densité, des moments particuliers, exaltants, puisqu'il faut les vivre et rendre grâce à Dieu d'avoir le bonheur de les vivre. Et c'est des moments qui commandent un esprit de lucidité, un sens responsabilité responsabilités, un engagement particulier. Et c'est en comptant sur le fait que les filles et fils de notre pays sont nombreux à saisir la particularité des moments et l'appel de la nation. C'est avec cet espoir-là, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, que je vous tout mon bonheur d'être à vos côtés aujourd'hui dans cette Assemblée pour cette séance d'installation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. À présent, nous donnons la, la parole au président Idriss Seck pour son discours. Merci. Chers amis, AMI et AMIE, Madame la Présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mais surtout, très cher jeune frère Abdou. Maître Ousmane Sey, que j'ai connu à Rebus, <laughs> représentant Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant de Madame la Présidente de la Commission nationale du dialogue des territoires, Monsieur le Premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental, et je confirme, cher condisciple du lycée Van Vollenhoven est peut-être meilleur élève de la classe. <laughs> Honorable député, ben vous, vous, êtes meilleur élève parce que vous êtes resté dans le monde des affaires et je suis allé m'embourber en politique. <laughs> Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables élus nationaux et territoriaux, chers et distingués invités. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu. Ensuite, exprimer mes remerciements à Monsieur le Président de la République son excellence monsieur Macky Sall pour la confiance qu'il a placée en moi à cette station de proximité et de loyauté. Je voudrais vous remercier, vous, les membres du bureau du CES, vice-président, secrétaire élu, président de commission, ainsi que vous tous, très chers conseillers, mandatés ici par vos organisations socio-professionnelles d'origine ou par la confiance de Monsieur le Président de la République. Je voudrais, Madame la Secrétaire Générale, associer à ces remerciements l'ensemble du personnel du CES, sans le dévouement et la vertu desquels nous ne pourrions atteindre les objectifs à nous fixés par le président de la République, ni les résultats de nous attendus par le peuple sénégalais. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à toutes à tous les hommes valeureux qui m'ont précédé dans cette mission à la tête de cette institution, de feu maître Léon Boissier Palan à madame Aminata Touré, en passant par d'autres illustres figures, parmi lesquelles je souhaiterais citer le président honoraire Famara Ibrahim Sagna, à qui nous devons ce siège, et bien évidemment ma très chère sœur et amie, la présidente Aminata Tall. Je voudrais dire à tous ses prédécesseurs que c'est sur les fondations de leur legs que j'entends continuer à mener avec l'ensemble des conseillers et membres du personnel ma mission. Je voudrais enfin remercier l'ensemble de nos compatriotes qui ont émis des avis sur le choix que j'ai fait d'accepter de diriger notre institution. Je suis attentif à toutes les opinions exprimées, de manière bienveillante ou pas, car j'y vois une source précieuse d'enseignement destiné à faire de moi une meilleure personne et un meilleur leader. À nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci. Face à certaines circonstances historiques, il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile, pour citer Aimé Césaire. Il faut également dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produits. S'agissant de mon intention antérieurement de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Cher Baidi, vous l'avez rappelé, notre pays, à l'image du reste du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit de cette Covid-2019 avec son cortège de conséquences économiques et sociales jusque-là inconnues. Aujourd'hui, comme hier, Ma réflexion et mon action plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est au loin. Il s'élance déjà du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà, s'il plaît à vous. Au cours de la longue et enrichissante audience qu'il a bien voulu m'accorder pour recueillir ses directives, orientations et attentes, j'ai pu retenir que le sort de la jeunesse particulièrement celles qui se tournent désespérément vers l'émigration clandestine, est au cœur des préoccupations de Monsieur le Président de la République. La lecture attentive du communiqué du Conseil des ministres tenu hier en atteste à suffisance. Je prie pour que l'aspiration légitime au bonheur à la prospérité et à la réussite qui anime les espoirs et les rêves de notre vaillante jeunesse, nourrie de Djom, de et de Fit, puisse un jour très prochain se réaliser pleinement en terre sénégalaise et africaine. Je m'incline à nouveau devant la mémoire de nos enfants à jamais disparus en mer. chers collègues. Le président de la République et l'ensemble de nos compatriotes attendent de nous que nous fassions du CESE une institution utile aux yeux de tous. L'ordre du jour de tous les travaux du Conseil, deuxième Assemblée constitutionnelle et Assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, tire son origine des trois sources que sont la saisine par le président de la République, le gouvernement ou l'Assemblée nationale, mais aussi l'autosaisine par les conseillers eux-mêmes et plus fondamentalement le mécanisme de la saisine citoyenne au moyen d'une pétition portant 5000 signatures. Au service de notre mission d'examen de propositions de réforme, de dialogue et de coopération en faveur de la politique économique, sociale et environnementale de la nation, avec la participation de l'ensemble des forces vives représentées dans notre Assemblée, il nous faudra faire davantage preuve d'humilité, d'ouverture et de disponibilité pour une écoute appropriée des préoccupations, demandes d'avis ou d'études de son Excellence Monsieur le Président de la République, de son gouvernement, de l'Assemblée nationale et de tous les citoyens sans exclusive. Écouter les Sénégalais, entendre leur voix, identifier leurs attentes, les relayer à qui de droit en vue de leur satisfaction effective car l'écoute est la porte d'accès à la connaissance qui révolutionne et éclaire les actions. Rien de ce qui préoccupe nos compatriotes ne doit échapper à notre attention. une mère anéantie par le tragique naufrage de son enfant, son affliction sera entendue ici. Un jeune au désespoir face à l'échec ou à la déperdition scolaire ou accablé par le chômage, son découragement sera entendu ici. Un pêcheur inquiet, anxieux et perplexe au sujet d'accords internationaux de pêche qu'il considère comme une menace pour son travail et pour la pérennité de nos ressources halieutiques, son inquiétude sera entendue ici. Une femme victime de violences impunies basées sur le genre, ses plaintes seront également entendues ici. Un enfant victime de maltraitance ou d'abandon, ses pleurs seront entendus ici. Un citoyen depuis Kédougou exprime des complaintes, nous les entendrons. Ce sera pour notre Assemblée consultative la meilleure façon d'accompagner les choix de Monsieur le Président de la République, de son gouvernement et de l'Assemblée nationale dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques les meilleures possibles. Chaque avis émis sera porteur d'une solution efficiente qui puisse valoir à l'autorité la satisfaction des citoyens. Mesdames, Messieurs, chers invités, à la suite d'une relecture approfondie des textes législatifs et réglementaires nous régissant, et après échange avec des citoyens de toutes obédiences politiques, de toute confession et de toute catégorie socio-professionnelle, j'ai pu davantage appréhender l'étendue des attributions et missions du CES ainsi que les préoccupations et attentes légitimes des Sénégalais. J'ai également eu à connaître les parcours académiques et professionnels des femmes et des hommes qui animent le CES. J'ai pu en tirer la certitude de trouver au sein de cette institution les talents, l'expérience, l'expertise, les vertus, ainsi que les qualités humaines propice à une bonne conduite de la mission assignée. Ils nous permettront de nous prononcer sur les problématiques les plus saillantes et les plus ardues, au fin d'émettre des avis pertinents permettant d'y faire face efficacement. Ainsi, pour montrer la richesse, la diversité et la représentativité dans notre institution, de toutes les forces vives de notre pays, je voudrais, à titre d'exemple, faire remarquer que quand M. Baïdi Agne parle, la voix des patrons d'entreprise est entendue. Quand messieurs Maudi Guiraud, Mme Bassok ou Sidi Ndiaye parlent, celle des travailleurs l'est aussi. Quand Maître Moustapha Ndiaye parle, les notaires sont entendus, Quand M. Oumar Ba parlera ici, les collectivités territoriales seront entendues, car à l'instar des autres membres du CES, ils sont tous, et vous tous, dépositaires de la confiance de leur père et de celle de Monsieur le Président de la République. Soyez assurés mes chers collègues, que j'entends tirer de cette riche expérience, de tirer de cette riche expérience un avantage, et je vous remercie par avance de la disponibilité, du dévouement et de l'engagement que l'examen de vos parcours académiques et professionnels respectifs m'autorise à bien des égards à en espérer. De même, j'ai eu le grand plaisir de découvrir parmi le personnel, Madame la Secrétaire générale, l'existence de ressources humaines de qualité, capables d'apporter aux citoyens plus que ce qu'ils coûtent aux contribuables. Je veillerai pour ma part, et avec le soutien de tous, à ce que les conditions de travail du personnel, comme celles des conseillers, soient telles que vous finirez par préférer les lundis au samedi. En outre, l'ouverture du CES aux meilleurs talents du secteur privé national comme international lui permettra d'affronter avec plus de sécurité et d'efficacité les sujets les plus complexes de notre temps. Chers conseillers, le premier thème dont le président de la République m'a entretenu, c'est l'emploi des jeunes, l'émigration clandestine. Et il a naturellement ajouté les inondations récurrentes, l'érosion côtière induite par les changements climatiques, et la gestion de nos ressources naturelles, notamment celles pétrolières et gazières. Nous devrons aussi nous intéresser aux formidables potentialités qu'offre la révolution numérique. Compte tenu de la nécessité de bien préparer nos enfants et petits-enfants au monde de demain qui sera dominé fortement par l'intelligence artificielle. Il en est de même du désir de souveraineté, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier vice-président. Cette crise Covid-19 a réinstallé la question de la souveraineté au cœur de toute réflexion en matière de politique publique partout dans le monde. de tout mettre en œuvre pour que, florissants et nombreux, soient les merci formulés par nos concitoyens à l'endroit de l'État et de sa plus haute autorité. Mesdames, Messieurs les conseillers, je suis d'emblée rassuré qu'ensemble, nous veillerons à assurer la tenue régulière des sessions ordinaires du CES conformément aux dispositions qui les régissent. Toutes les urgences retiendront notre attention. Ensemble, nous nous attellerons à travailler avec tous les autres segments de l'État et les institutions sœurs, dont je voudrais saluer et remercier les représentants ici présents. Dans la recherche de l'efficacité dans notre action, une attention particulière sera accordée au renforcement des partenariats et aux synergies qu'il convient de développer avec les institutions de recherche, les universités, le réseau des évaluateurs des politiques publiques, les entités du système des Nations Unies et avec toute autre organisation engagée comme la nôtre à accompagner la formulation et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et environnementale. Parmi nos chantiers prioritaires, il nous faudra aussi œuvrer pour le rayonnement du CES au plan ouest africain, continental et mondial. Cet objectif sera atteint par le renforcement et la revalorisation de ses contributions scientifiques au niveau des cadres fédérateurs des institutions internationales sœurs comme l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones et l'Association internationale des conseillers économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique. Mesdames, Messieurs, à cet instant, qu'il me soit permis d'adresser pleinement et entièrement toute ma gratitude à l'endroit de nos khalifes généraux et de son éminence l'archevêque de Dakar, au chefs religieux traditionnels et coutumiers pour leurs prières qui nous ont toujours accompagnés. Je me réjouis particulièrement de la présence parmi nous de Serigne Chouaïbou Mbacké, fils du vénéré Khalif général des Mourides, accompagné de Serigne Modou Rokhaya et de Serigne Saliou. Je voudrais exprimer une gratitude empreinte d'émotion à l'endroit de mes cousins Mam Malik Si et Abdourahman Si, fils, feu le vénéré Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Si Al Maktoum qui me vaut le surnom de Mara du fait de la volonté inébranlable de ma défunte maman à me prénommer Marabout suite au choix de mon père de me déclarer à l'état civil Idrissa. Je ne saurais terminer sans exprimer mes sincères remerciements aux ministres, directeurs généraux, directeurs, chefs de service, aux parents, amis, alliés, Merci Malik d'être là. À toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu rehausser cette cérémonie de leur présence. Pour conclure, je voudrais vous réaffirmer que dans l'exécution de cette mission à moi confiée par le chef de l'État, mes oreilles et mon cœur seront toujours ouverts à la vérité et aux idées novatrices et constructives pour le développement socio-économique de notre très cher Sénégal et je vous remercie de votre aimable attention. mbokk ma jéema tënk tuuti li ñu fi wax ci wolof ndax ñi ñuy liggéeyal suñuy làkk lañu gën a dégg làkku ginnaaw nuyoo bi ak sant yàlla gi ak bëgg lool ci teewaayu kilifa yi fi ñëw yépp di sant itam suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xam ni ñooy jottali suñuy kàddu askan wi li ñu fi wax dafa am seen soxna su ma woo ne ma waaw li ñu li ñu la jox moom nu mu tudd ma ni ko conseil économique social environnemental mu ne ma gudd na de mbaa diisewul noonu <laughs> ma ni ko kon del wax ses rek boo nee ses rek parce que ñii dañ naan CSE ñii naan mais ses moo gën a yomb boo jëlee taxi boo ne ko ah. 16 voilà ñii ne 16 mais man daal 16 comme ndaw si bi ma ko nee 16 daf ni ma ses ma ne ko 16 baax na 16 <laughs> lu lu ñuy liggéey pour askan wi askan wi daf ko war a xam war koo mën a war koo mën a tudd may rafet lu seen teewaay yéen ñëpp di lu dogal bi suñu boroom dogal. suñu waxtaan président de la république ak man jur ñu jàpp ni fi suñu réew toll li mu laaj du kii taxawee nii kii taxawee nii wante mooy boole suñuy xalaat boole suñuy doole suqali réew muy décision bu am solo boo xam ni jur na nag coow lu bari wante coow li li muy bari bari lépp ñett rekk la benn bi mooy ñi nga xam ni dañu ma sopp yéene ma jàmm mbir mi xew bett leen ndax du lu ñu mënoon a waxtaaneek ñoom avant muy sotti ba nuppi ñuy xalaat naan waaw ñun fi ñu la yéene woon di ko séentu ndax lii du ci doon gàllankoor ñooñu li may dalale seen xel mooy li ma samay kilifa jàngal sëriñ taxaa daf ni ma sa boroom moo la gën a xam sa bopp moo la gën ci sa bopp kon bu wareef taxawee defal rekk sama nijaay sëriñ Cheikh daan wax ni nit ki bu bëggee noppalu day nangul yàlla xareñam ci namm nammam lu mu namm ci moom rekk mu ñaan mu tàggat xolam xolam nangu loola donc soppe yi nga xam ni dañoo amuk jaaxle ci lii ma def nañu dalale seen xel loolu te xam ni namm namm boroom ci jaam romb na pexey jaam ñaareel bi mooy citoyen yi nga xam ni ñoo moom réew mi dénk ko ay nit wax nit ñooñu ñu yoreel leen réew mi ñu xëy gis président de la république woo opposition waxtaan ñu xëy dégg nouvelle ne Idrissa Seck dugg na ci gouvernement bi ñooñu nga xam ni faruñu fenn bokkuñu benn parti li leen ñor mooy waaw ñii lii ñu def ci kaw seen bopp lañ ko defal pour régler seen problème yi bopp wala ñun lañu bëgg a saafaraal suñuy jafe-jafe ñooñu li may dalale seen xel mooy ñu gëstu suñu jaar-jaar gëstu fi président de la république jóge ak fi mu egsi gëstu fi ma jóge ak fi ma egsi bu ñu ko seetee ba seetantal ko dinañu xam ni kenn ci ñun sañu la bañ a bàyyi xel satisfaire besoin population na ko Serigne Cheikh daan waxe rek loo xam ci ku umple njariñul jariñe boo bëggee jariñu li ci gën a gaaw mooy nga jariñe boo jariñee rek jariñu kon nag citoyen yi nga xam ni lii seen préoccupation ñoom mooy ñu saafara seeni jafe-jafe nañu dalale seen xel loolu en attendant liggéey bi di jur résultat yi ñu yaakaar ñetteelu catégorie bi indi coow li mooy ñi nga xam ni li ñu def jàpp nañu ne dëppoowul ak seen njariñ walla seen projet ya ñu amoon li ñu def faagaagal na ko ñooña ñaari catégorie ci am catégorie bii ay citoyen patriot lañu yu bëgg Sénégal ni ñu ko bëggee am ay xalaat yu woroo ak suñu yos ñooñu li ñu war a séq ak ñoom mooy waxtaan teg ko ci teggin ak orma ak yar puisque woroo ci ay xalaat tekkiwul noonoo wala tojante bopp Serigne Cheikh daana wax ni Sénégal dañoo mën a xeexale xam-xam yi te duñu leen xeetale te dañoo war a xeetale xam-xam yi bañ leen a xeexale ki nga xam ni am na opinion bu waroo ak sa bos danga koy nangul opinion défendre sa bos koy nangul opinion défendre sa bos loolu mooy dundal démocratie mu des ñi nga xam ni nag mooy deuxième catégorie bi ñooñu seen intérêt bopp walla ay intérêt yoo xam ni état bi day dogal lu leen neexul ak lu dëppoowul ak seen intérêt ñu bëgg a jël ay xale yu nekk ci ak ndóol manipuler leen def leen jumtukaay bu ñu xeexee état bi ñooñu dañu war a xam ni nous veillerons politiquement et étatiquement à ce qu'il ne puisse causer aucun grand mal, seulement une nuisance par leur langue. Il faut que ñu xam ni ñooñu li ñu war suñu diggante ak ñoom mooy fexe ba lu weesu wax ñu bañ a mën a lor réew ndax stabilité bi ñu am ku dawee feneen sa xel Sénégal lay jàpp liy développé koom-koom muy investissement bay di mën na ko firndeel kiy dugal xaalisam ci bërëb di ci yaakaar dara la muy njëkk a xalaat mooy ndax fii ma koy dugal dana tàkk wala du tàkk parce que bu dee day tàkk du ko fa dugal kenn du jël sa alal di ko dugal ci sébb buy tàkk ñaareel bi mooy ndax am na ay opportunité koom-koom ñetteel bi ndax am na sécurité juridique et judiciaire ñeenteel bi bu ma ci dugalee sama ñaar fukk yi kañ laa ciy jotaat te bu ma ciy jotaat ndax day yokk wala day wàññeeku donc kiy investir balaa dugal alalam loolu lay xalaat bu fekkente ne dangaa nekk ci sous région boo xam ni ñu ne fii mu ngi tàkk fii mu ngi tàkk fii mu ngi tàkk ñu ne ah fii de moom am na jàmm te lii ñu def pour sàmm suñu jàmmu réew ci la ñépp di mujj ku yebu xool li xew feneen te ku bàyyi sa bopp ak yàlla vraiment doo def ay calcul di wax ne lii ak lii moo moo am Famara Ibrahima saaña nga xam ni vraiment yàgg na ma xelal daf ma wax bër ki dem mu ne ma nit ki ñett la suñu boroom tëral mooy yéene jëf ak dogal yéene ak jëf mu bàyyi ko ci suñu loxo dogal yàlla téelu ko boppam yéene naal am projet jëf li nga mën lépp pour projet ba antu nangoo dékku sacrifice ak coono ya mu laaj pour mu antu boo defee ñaar ñooñu ba pare am na leneen luy xew loo dul yépp luy tax projet ba antu wala mu bañ a antu donc ku ku ku weddi seetal bërki démb Ouattara présenté Gon Coulibaly premier ministre ne mooy candidat wane ko parti ba investir ko ñépp ñetti weer des ci suñu borom ñëw ak dogalam moo bokkatul kon loolu moom dañ koy war a bàyyi ci loxo suñu borom may digal ñi ñu àndal ñépp ñu bàyyi loolu te concentré wu ci liggéey bi nga xam ni situation bu bees moo am ci àddina bi économie yépp di daanu États-Unis boo fa demee tey ay million yi nit génn nañ leen seen kër ndax mënatuñoo fay seen crédit bancaire ñu ngi nekk ci chômage te ñoom ñooy première puissance économique mondiale bi mbir mi xewee ñun ñépp a ko yëgandoo puisque suñu doom yi nekk bitim réew pour daan seen doole dimbali seeni waajur fii ñoo njëkk a yëg coono bi transfert yañ daan def muy ñëw senegal dafa nërmeelu ba ñun ñoo obligé di leen dimbali ñoom en sens inverse ci projet bi nga xam ni président de la république tëraloon na ko pour ne nañu leen jàppale y compris ñi nekk ci diaspora bi donc situation bu bees boobu bu taxawee nga nekk fi bu ma defee lii danaa ci am ay jam-jam danañu ma def nii danañu ma def naa kooku jaaduwul li war rekk mooy futeeku xeex ak situation bi xalaat boole xalaat yi pour tabax suñu suñu réew bu ñu bu ñu pare ci loolu li li li yàlla di def moom moo ko xam mu des ma bëgg a leeral askan wi njariñul sees boo amee sa xalaat am sa coono am sa problème au lieu ngay dem ci mbedd mi nangam nangam groupe citoyen bu nekk bu amee 5000 signatures sañ na ko yóbbu ses ne leen sama mbir mii kat xalaat leen ci puisque gouvernement bi tëral na loi sàngam wala projet sàngam wala programme sàngam programme boobu jural na ma loraange sàngam bëgg naa ngeen dimbali ma ci mu saafaraw ñu ñëw fii waxtaane ko comme ni ñu ko waxee ak ay expert yoo xam ni non seulement seen xam-xam màcc na ci lañu daan def mais dañoo liggéey lu yàgg ca loola dama amoon benn professeur bu may wax ne va chercher les matières grises dans les têtes grises parce que dans les têtes grises la matière grise a côtoyé le vécu et l'expérience donc loolu moo nekk fii toutes les organisations professionnelles socio-professionnelles sont ici plus une quarantaine de conseillers nommés par le président de la République plus la possibilité les ressources financières d'accéder à l'expertise extérieure maanaam euh, am nañu moyen yu ñu fekke benn expert ci biti boo xam ni xalaatam ñépp nangu nañu ko ñu ne ko mbir sàngamkat ñëwal dimbali ñu ci bi nga xamee ni séq naa ak président de la république waxtaan bu yaatu pour seet lan mooy ay directive am maanaam nan la bëgguñu ñu liggéeyee li mu ma njëkk a wax mooy lii ngeen tudde mbëkk mi maanaam xale yi dem ci géej gi nañu nañu ci réfléchir nu mu gën a gaawe xam lan moo ko sabab est-ce que ñàkk liggéey la programme mu emploi yi nangam na mais daal nañu ko nañu ko gëstu na mu gën a xóote jox ko ci suñuy xalaat donc loolu sujet la boo xam ni danañu ko waxtaane fii mbënd mi inondation yi loolu war nañu ko waxtaane indi ci ay saafara mbël mi maanaam brèche bi nekk Saint-Louis nga xam ni suñu côte beeg yëpp mu ngi mu ngi yàqu mbuur noonu et cetera changement climatique yi am di indi yooyu nan la ñuy def ba ba ba waxtaane ko ak yeneen donc ëmb boobu ma fa jëlee ca waxtaan wa dama koy jébbal bay di ak bureau bi ñu seet tëral suñuy ordre du jour respecter suñuy procédure def suñuy session organiser ko ci ni ko texte yi tërale texte yi it bi ma laataa egsi yër naa ko muy constitution bi muy loi organique bi muy décret yi nan la tabaxe kër gi ak nan lañuy ñuy liggéeyee yër naa itam ku ci ne ci yéen sa jaar-jaar yër jaar-jaar con euh, personnel bi foofu ma bëgg fi taxaw tuuti puisque dañu ne Idrissa dafa ñëw dàq ñi def li dama bëgg leeral ni fii duñu fi def dara lu dëppoowul ak loi passation de service amul ma waroon a jot këyit gu ma wax li ma fi fekk lan la lan laa fi fekk ci compte yi lan laa fi fekk ci meuble yi ak li li ses am lépp lan la ki ko yoroon waroon ko bind ci ay këyit signé ko wax date bi mu ko siñee parafe ko loolu fekkuma ko fii bi ma ko fi fekkul itam wax naa ko ki ma ko war a wax mu ni ma defal sa situation de référence ci loolu laa santaane fa la mais fuyewuma gestion ma sàmb taluma loolu li ma tal mooy ëmb ba ma jële ci waxtaan wi ma ma jéem a seet nu ma koy lijjante mais daal lu dul ma dem ci bibliothèque bi ci archive yi seet yan xalaat la fi Aminata Tall def yan xalaat la fi Aminata Touré def yan xalaat la fi Famara def yan xalaat la fi Boissier Palan def Magatte Lô euh, Guirassy et cetera pour jéem cee jël bala may euh, wax loo xam ni ndekkete defoon nañ ko bu yàgg te yëguma ko loolu dinaa ko def mais fouiller naan gestion bi nii loolu du sama liggéey du ma du ma ko def bëgg naa bëgg naa leeral loolu bu ma defee daal situation de référence bu leer sant ko ñi ma ko war a sant man danaa ko signé date ko wax ne lii laa fi fekk bis bi ma tàbbisee ci kër gi jox ko ki ma fi remplacé laaj ko ndax dëppoo naag li mu xam wala déet bu tontoo baax na bu tontuwul baax na wante werante du am xuloo du am jamono yi dajale la ñu nekk jamono yi boole lañu ñu nekk jamono jëm ci kanam lañu ñu nekk donc vraiment loolu bëggoon naa bëggoon naa mu leer puisque dégg naa ci ay ay wax yu bari secretaire général bii fii laa ko fekk wante du ma ne ndax kii ko fi indi kaa ko fi indi dama naan ndax li ma bëgg pour président mi ma wóolu ba teg ma fii dootul amati ci dundam ku mu war a mën a gën a wóolu ndax qualité liggéey bi ma koy jox ñi ma bëgg ñu jàppale ma ci ko walla déet bu ñu ko manee rekk jeex na bu ñu ko manee du ma fi nekk di wuti xam nga voilà loolu daal moo loolu daal moo ci moo ci am importance léegi nag ma wax ne ma wax ne débat politique bi jeex na léegi vraiment puisque dañoo dem waaw am na ku sàkku woon ci man ma leeral ne ndax maa musa wax ne damay tas kër gi na ko déedéet musuma ko wax moo ko waxee na ko génne fu ma ko woone sama programme xam nga eh, dañu ne dama bëgg ay aaya mais léeg-léeg daf koo laaj in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu bu bu bu saay-saay ñëwee bett la ak xibaar bala nga koo jël di ci juger nit leerlu ko ba pare ba mu wér la leerlu ko ba mu wér la parce que diw nee na ma nee na lii nee na laa nee na lii waaw danga naan ko d'abord indil ma fi mu ko waxee parce que lu may wax euh, ki ma yar ci politique daf ma daan wax je suis un homme nuancé je suis très nuancé bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene <laughs> décret di ma fal <laughs> parce fasatuma yéene waxuma <laughs> puisque damay bàyyi xel dogalu yàlla man sama yéene laa moom sama yéene kay sama yéene sama yéene laa moom ak sama góorgóorlu ak samay pexe wante li ci des nag moom dafa dafa am borom donc vraiment suñu suñu mbokk yi ku ñëwati rek ne la Idrissa nee na nee ko fu mu ko waxee rek génneel ba nga déglu bu baax li ma puisque dégg c'est très important bu dégg amee déficience xam-xam manqué moo tax yàlla mi xarañ di boole ay turam en général day wax samiun alimun c'est-à-dire l'audient l'omniscient qualité dégg dégg mooy def qualité xam donc da ngeen di déglu vraiment en tout cas ñi ñu sopp daal ànd ak ñun muy njabootu président muy sama njaboot nañu jàpp ni ñun daal dellu nañu mel ni mburoog soow ba ñu nekkoon <laughs> ba ñu ne léegi léegi puisque loolu loolu loolu mooy dëgg gi loolu moo xew c'est-à-dire bi ñuy bi ñuy waxtaan ci ci njalbeen dañ doon wax yeneen xalaatuñu woon egg si fii dañ wax ay statut de chef de l'opposition dugg na fii génn na fii wante nag bi ñu xamee ni gindikoo am na gindikoo gi leer te wér kii xam na ci dara ca suñuy jamono waaw oh, ñoo benn lañu woon voilà léegi nag jaar-jaar am na moo tax euh, président Famara dafa ma dénk ñaar yu ma ko ziyaare jee daf ni ma sama rak la ma la daan wax ba ñuy lijjanti mbiru ab du Diouf ak Ablaye Wade laa lay wax mooy gumba du jommi léeg-léeg gumba du jommi puisque du gis li koy jommal ñi la bëgg a jommal bu ñu defee seeni pexe melal ni gisoo ko rek defal fatuus mu teg ci ne ma mu ne ma li ma lay dénk mooy ngeen fexe ba ràññee que dafa am ñoo xam ni ils ne son contents que bu fekkente ne ñu ngi troubler les eaux am ñoo xam ni bu ñu xëyee suba ba ngoon dañuy nager dans les eaux troubles ensuite ñu jéem a fexe seeni kilifa nager en eau trouble ñun nag ku trouble sam ndox di jëfeey boo ñu jawoowee ñu bañ ñu laaj voilà donc pour pour mu leer que liggéey moo ñu fi indi urgence yi bare na xale yi di ñàkk liggéey ñëpp la metti c'est une priorité une surpriorité nationale économie numérique bii ñuy wax ci àddina bi suñu doom yi ca la ñuy dund ca tàngu Karl Marx ay économie euh, révolution industrielle lañ doon wax ñoom ñuy théoriser l'exploitation de l'homme par l'homme révolution bii di ñëw nag muy révolution numérique l'homme sera presque économiquement inutile, puisque l'intelligence artificielle va le remplacer dans la plupart des métiers. loolu mooy li ñuy xaar ñu war a waajal suñuy doom ci loolu ensuite fii ki at ñu am ay ressources gazières pétrolières nan lañ koy def nan la ñuy fexe ba aaru suñu bopp ak suñu réew pour que ñeneen ñoo xam ni fu richesse yooya am ñu jéem faa indi ay jafe-jafe pour teg ca loxo ñu moytu loolu donc yooyu mooy li am solo léegi nag li li li ma wax mooy 2019 coow la jeex na compétition la woon électorale ku nekk saam sa programme ñu ñëw ci sénégalais yi nga xam ni ñooy jënd ñu jox kii 58 jox kii 20 séddalee ko noonu ba mu sotti waaw léegi kon cooloolu loolu jeex na bi mu jeexee ñeenti candidat yi nekkoon opposition sama kër lañu ñu daje Ousmane Sonko Madické Niang Issa Sall ak man ñu bind bataaxal ne résultat yi d'accorduñ ci loolu ubbi contentieux électoral maanaam werante ci ndax nangu nañu wala nangu contentieux boobu itam jeex na bi dialogue national ubbee puisque bu ñu neexoon ñu ne du ñu dem dialogue national dañuy dem ci mbedd mi wala ñu xaar ba yeneen élection mais du ñu nangu mais nangu nañu dialogue national donc débat boobu jeex na moo tax ma bëgg moo tax ma insister pour yooyu question ñu xam ni dootuma ci dellusi lu ñuy lu ñuy wax daal na nekk ban njariñ lañu mën a amal suñu réew lan la ñuy ajouter comme valeur ci problème yi nga xam ni moom la réew mi jànkonteel di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu mbokku journaliste yi di wax ne nag léegi liggéey mooy tàmbali avec les membres du bureau et avec l'ensemble des conseillers et avec l'ensemble du personnel du CES. li ma wax ci personnel bi itam ci tubaab ma baamtuwaat ko wax ko ci conseil yi mooy daal dinaa fexe ba xëy altine gënal leen noppalu samedi incha allah jërë ngeen jëf di di di di sant bu baax suñu kilifa diine yi teew ak yi fi nekk yépp di yi ak mbokk yi jërë ngeen jëf. Merci Monsieur le Président. Je voudrais demander à l'Assemblée de rester assis le temps de permettre au Président de se retirer. Et je voudrais aussi informer les journalistes. Je pense que vous serez d'accord avec moi que tout a été dit et vu le cachet protocolaire de cette cérémonie.